mbokk yi ba tey ñu àndaat ak keneen euh, ci membre d' organisation wu daayira bi euh, Seydina Bo euh, doomu Pikine waaye également un jeune pétri de talent Seydina tey jii ñu fekk la ci beneen mbubb asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Seydina naka ngeen nekk di dundee organisation événement fu nekk nii macha allah parce que ñun moom ay mag lañ ci ñu am ci tamit suñu rax yu baax yu ñu dëggal tamit fu ñu leen wax aw leen rek foofu la ñuy aw. Mhm. xale yi tamit yombalal ñu ko quoi. macha allah tam booy quoi. Euh, tout à l'heure may waxtaan ak seen présidente mu ne ma ça fait plus de vingt ans ngeen di organiser événement bi est-ce que c'était facile ngeen koy pérenniser chaque année ngeen di am doole di am kattan di gën a am cawarte pour gën a organiser événement bi. waaw lu lu mu wax moom dëgg la quoi parce que moom yow guddi yonent bi moom. ñun moom ñun moom duñ ci ragal bu ñuy bu ñuy démarrer yor dara waaye bu ñu ci kiwee day sotti parce que yonent bi la moo tax. d'accord xëy ngeen daal di euh, jege également seen papa yi ak seen yaay boole leen si bés bi euh, naka la waxtaan bi demee woon ba xam difficile loon ba xam waxuñu leen xëy na dafay difficile voilà. non non ya parce que ñu naa ah, suñuy yaay yu ñuy seeti wala suñu papa yu ñuy seeti buñ demee di waxtaan ñoom dañ ciy kontaan remercier ñu tamit sant ñu gërëm ñu parce que tamit am na tamit suñu yeneen moroom yoo xam ni aw nañ ci beneen yoon ñun yàlla dimbali nañu ba aw ñu ñun xool si yoon boobu moo tax ñun dem dem fépp. dañ ciy kontaan bég ci. Seyna wax ma tuuti ci daayira bi yan genre jeune ñoom ñoo nekk ci daayira bi ak fan la ñu dëkkee euh, comme saa ñu mën a xam. waaw presque daayira bi moom si koñ moom la ëppee quoi. am na tamit koñ bii moom mooy ban koñ. fii mooy Gunay Zeng la fii mooy Gunay Zeng ay numéro 2. waaw mais presque jeunes yëpp nag fi lañ fi lañ bokk quoi. am na ñoo xam ne tamit dëkk nañ Gazelle am na ñoo xam ne dëkk nañ beneen boor. daara bi tamit dafa dafa yaatu. waaw d' accord ngeen daal di dajaloo euh, pour bu amee yeneen jeunes yi nga xamante ni gis nañu jëf ju rafet ji ngeen di jëf ñu bëggoon a bokk ci daayira bi nan la ñuy def waaw gis na daayira moom bokk ci moom yomb na yëpp parce que ñun ñooy mag ñi ñun dañuy wan xale yi nii rek après xale yi ñoom ñooy continuer lépp ñun mag ñi moom côté boobu ñun la lañ taxawee suñuy raq lañ nekkal suñuy raq tamit ñoo bokk ci organisation bi ñun tamit dañ leen dañ leen wan yoon pour su beneen ñu ñu mën a aw tamit ci yoon boobu. sëy naa ñu gis si ginnaaw li fi xew xam nañ ni euh, def ngeen ci doole gu bari ak alal gu bari est-ce que autorités yi uyu si nañ leen ak euh, liggéey bi ba xam difficile loon trop. macha allah affaire moom méttiwul métti na mais guddi yonent bi la day neex rek. waaw autorités yi est que ñëw nañ dimbali leen si guddi gi. macha allah ku ñuy wax Malick Cissé moom ñëw na. Mhm. kooku moom ñu ngi koy sant di ko gërëm moom ñëw na teewal nañu. waaw. ñeneen ñi est ce que boole ngeen woloon ci bés bi wala euh, euh, personne nu rek ngeen woolu woon. waaw presque ñun moom Malick Cissé moom ñun moom presque moom ñun moom mooy moom mooy suñu lépp ñun parce que euh, bañ ko koy njëkk tuddee moom daayira bi avant la woon avant tamit muy muy doon dara moom dafa bokk moom si daayira bi waaw te ñun tamit moom lañu xam suñu raq yi tamit ba ñëwee te ñu wan leen yoon bi ne leen kii mooy Malick Cissé waaw. Euh, sëy naa sànq ñu ne ma euh, sëriñ baa ngi ñëw est-ce que mën nga ñëw fàttali kan mooy sëriñ waaw kii di ñëw mooy Sidi Ahmad doomu sëriñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidiane. Ah, d'accord lan moo tax ngeen choisir ko pour moom mu ñëw euh, jàng si tey. moom moom parce que ñun ñun moom si papaam lañ jokk woon papaam moom moo ñu teg si loxo doomam ki ñuy wax Sidi Ahmad mhm. moo tax léegi ñun moom ci moom rek lañ jokk fu mu ñu fu mu nañu aw leen foofu la ñu aw fu mu nañu arrêté leen foofu foofu lañ koy taxawee. ci cant ak gërëm. Euh, ñan ngay jokkale kàddu yi. parce que ñi ngi sant waa koñ bi yëpp. amuñu amuñu yow seen fay ku lim juum. mais ñi ngi sant ñëpp. waaw mënuma lim nag. ku lim da ngay juum. ñi ngi sant ñëpp. réalisé rek. waaw bàyyiwuñ kenn. koñ bi ñëpp a génn. waaw kontaan nañ ci torop nag amu ñu nag seen fay. yal na leen yàlla fay. jërëjëf Seydina. merci beaucoup. d'accord merci beaucoup ñu continuer waat ak beneen jeune wala beneen membre d'organisation si vous voulez bien merci